de toute façon ni les nuits def di yàq der ñu ñi ak yoyu mais de toute façon borom yaay ju baax euh, kenn mënu ko tere xam waxam yoyu dal fekk man dem na consulat ba gis cassé consulat bu bu Sénégal bu Paris bu Paris consulat bu Sénégal à Paris ma daal di euh, gis cassé le chef euh, du des passeports bureau des passeports ma expliqué ko cas bi mu ne ma demal nga def ay photocopie après nga bind expliquer cas ak photocopie carte d'identité nga def récépissé photo passeport photocopie passeport la fi passeport dafa la fi def ko def ci cadre bu démé di renouveler bu confisqué. exactement Je je suis pas sa seule victime mu ngi sénégalais à Paris ak sax ne ma amul problème fi mom du fa amé kayit man euh néma dama wara dem sax mais ki sama succès kii may succédé mu ngi tok euh monsieur là de teint clair grand ak yooyu wan mako ko bu ñëwé de toute façon lui aussi il va suivre le dossier légui ci digënté bi pa fay dem na consulat fekk amna ku doon liggéeyee consulat kuñ fa affecté won dellu na sax Sénégal ku tuddu yassine mu woo ko kooku del fekk dellu na Sénégal yassine mu woo yassine ne ko euh, dafa bëggoon numéro euh, cassé parce que daf ko yoxoon mais numéro bi dafa réer daf ko soxla mais waxu ko lu koy doyé bi ko Yacine waxee Anta Anta ne yassine waxul dëgg dafa amel euh, martel khalis mom le triandé légui martel mo yoy papier yi dafa dafa bëgg dem pour renouveler passeport xamna lo naa bu ci dugg

mënuloo tëdd di nelaw pendant que moi je travaille nga ñew ne da nga jaar sama kaw ci kaw nga yow buma la ji ma ne ko non ça va pas se passer comme ça ci la commencé la guerre des fois mu revenir à de meilleurs sentiments des fois mu ki ba mu gi mu délégué doomam. voilà boobu def nga démarche. ci def na démarche bloqué naa ko fu ambassadeur du Sénégal. ambassadeur du Sénégal aussi je lui ai écrit binde naa ko fekk wona ay nit yu ma xam fofu pour ñu boole mak ambassadeur bi ñu ne ma bindal ñun dinañu euh, euh, suivre dossier bi ma bind ambassadeur bi donc affaire bi mu ngi sax ambassade aussi pour wax euh, euh pas fay ban façon ni ak malversation yi muy def nit ñi fi à Paris donc dossier ba dossier pas fay mu ngi ambassade bu Sénégal dossier pas fay mu ngi consulat bu Sénégal

léegi bima ma nit ki bi bi lolu yep mu may wan il est de bonne foi di di photo photo mu photo document yi demande de crédit photo document yi yónnee mako ko mi ngi sama tablette dinaa la ko man aussi après après ça mané ko léegi yow sa chèque la soxla ya tamit parce que Habib bugguma ko lor parce qu'il est rien il il a rien à voir dans l'histoire Habib Momo, ñata at la wara am. Habib il a plus de vingt ans. donc euh, mu daal di may defal moom tamit mu daal di may defal chèque deux mille trois cent yónnee ma ko jox ko Habib Habib moo ko indi signé ko de ses mains et tout ça léegi bi mu kiiyee ma ne ko mu ne ma léegi ni ñuy def mooy euh, affaire bi débloqué nañu kii bi euh, dans woo naa sax kii bi dans 48 heures ñu débloqué ma xaalis bi ak yooyu ma ne ko ok mu ne ma dinaa jox Habib xaalis bi mu indi ko su ma ko joxee naa ko jox 1000 bu ñëwee comme sax nga jox ko chèque.

Euh, bi ma demee ba parce que échange wax fen wax fen wax fen wat ci yalla billahi wallahi lazim xaw lan wax wax wax yep ak message yep yëpp mi sama biir tablette yep à preuve à l'appui parce que man tam su ma échanger ak je voulais quand même garder des traces à chaque fois damay échanger ak moom SMS aussi. légui biñu défé lolu ba paré mu daal di jour bi ma waxé daf koy day ki ñewul dernier jour bi mané Habib. léegi nag man j'en ai du ma topp si yéen rek di wax léegi dama bëgg nga wax ak sa papa boo waxu ak moom dinaa dugal chèque bi une certaine astu jaabi woo ma téléphone ne ma man daal dama dëgg naa man daal je me présente astu jaabi je suis une amie de la famille ak yooyu ma ne ko astu jaabi mu ne am ah, mu ma waaw euh, damay intervenir ci problème mu Pape Faye bi dama bëggoon daal vraiment euh, bu ma bu dugal chèque gu bi comme ça man après euh, demain de mardi d'ailleurs sax y a message pour faire les connaît mardi c'était au mois de mai le 19 quelque chose comme ça mardi 1000 euros je suis sama salaire ki ma virement il s'est trompé lan euh, sinon mardi a 1 1000 euros après dans deux jours dina a 1 1300 euros ainsi de suite Khalis vais bi mais bul dugal Mais bi. ne mais pourquoi curieusement pourquoi tu fais ça Mon euh, ça me regarde je fais ça pour la famille parce que vais me rendre un service pour ramener ne setan ci yu Je ok je samay vais rek am lay sama ok soit Habib si papa bi ma ko woowee mu ne ma bu la ko waxee rek dina ko def ak yooyu Pape Faye léegi nañ ko ci affaire bi moom dina fay ak yooyu dégguma message mu ma ne ma wow. c'est parce que virement bi wax a wax lay-lay déggaatuma ko ba léegi ma ne non man je vais pas m'acharner sur elle de toute façon j'ai pas affaire à elle ni à elle ni à Abib. donc pas la laa à affaire qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout simplement pris les chèques j'ai pris que deux chèques avec la gueule. Double ko pour le coup. chèque bonnet que tu trouves. chèque bu nekk ci turam l'a dit que a n'y ñaar yu 500 euros bu ci cinq 500 euros muy 1000 euros ma dugal ma les chèques sont revenus impayés Madame qui ki ma conseiller sama conseiller conseillé n'ema. Euh, boo bëggee mun nañu def de sorte que vous xaar bu compte bi ñu dem jëli mais bon de toute façon comme il n'y a rien on ne pouvait rien aller chercher hein. donc du coup qu'est-ce que j'ai fait dans ma colère j'ai mis tous les chèques ensemble Mon chèque chèque Abib, Habib yep, ba Dougal. tous les chèques sont revenus impayés ba les nii fi may wax ak yow Pape Les conséquences, dërëm. léegi conséquence chèque Abib tamit il se retrouvera interdit bancaire. mais Habib il va il va il aura des comptes à rendre à son à sa banque parce que de toute façon en France tout le monde sait que même si c'est un chèque d'un euro hein, euh, c'est un préjudice waxuma chèque Abib, 2300 euros. Donc j'ai mis tous les chèques ensemble. Donc les chèques sont revenus impayés. J'ai attendu 30 jours, comme le veut la, loi. J'ai attendu 3 jours, j'ai remis les chèques. Toujours sont revenus impayés. Parfait, t'as ne Je pas le ramener. Je ne ci même bu ma remboursé duma ko nièce elle se se retrouve aujourd'hui sans travail a na boîte embauché mi ngi toog si kër gi Pape Faye tas sa sama yaakaar tas sama yaakaaru ay mbokk rusloo ma ki sama kanamu ay mbokk duma ko baal xam nga dañ ne euh, euh, doom xaw ma jullit dafay baale des trucs comme ça mais am na yoo xam ne déedéet je peux pas

amalu ñu njariñ gàcc rek la ñuy teg ay journaliste dañ may woo bés bu nekk defuma waxuma maa ko laaj ma ne ko ndax banque ngay liggéey ndax dafa ñu ne banque ngay liggéey mu daal di ne ma crème bi may takk ci laa fayalee sama doom femme bu am jom sax ci laa fayalee samay doom seen école ba léegi nii ba am seen diplôme mësuma liggéey banque loolu la ma magam wax jigéen bu am jom dëkk bopp damaa wax këram pendant deux heures de temps ba gis ko lan laa ko wax dama ko ne ñëwuma pour nga fay ma de ay kayitu Pape Faye laa lay wan pour wan la ne la li may wax amuma dara lu ma si kii lii la ma def ay kayitam a ngi nii te dama leen di wax lenn bu fekkee seen mbokk la ngeen bëgg mu tàlli ëllëg bu deewee te dina dee même bu ma ko njëkkee dee sax baalu ma ko ma ne ko bu deewee sax di ngeen ma fay duma ko ko baal te parfait ma ngi xaar ak fu mën ne sama xaaliss mu jox maka mais à peu près yeen tay vous êtes combien ñi ngeen xamne daf leen devoir de l'argent lay bari nañu parce que ñun dañuy wotante sax ku ci am information jox ko sama rom manam yeen ñi mu escroqué da ñu ñu escroqué di dégonté di xarito dañoo dégonté parce que en fait wax ji euh, dafa mujj da nga da nga gis ñaari nit ñuy waxtaan rek

man nak j'ai jamais voulu marcher dans ce truc là man amna dem une certaine day job dem na ba woñu sax pour bëgg en fait ñu def une plainte collective mané ko régler ce problème ak pas Faye man ma régler ce problème ak pas Faye je suis pas là-dedans te pas Faye man xaw ma kan mais man xam naa il va me rendre mon argent day yag rek ma dina mako jox et je suis décidé je suis décidé duma ko bàyyi xaalis bi dina ko génnee fii loolu laa amoon lu may wax Pape Faye xam naa na di nga dugal xëy na photom ndax yor nga ko ku ko gisati muy ñëw boo yeboo nga daw boo yeboo nga daw parce que man dama ferme conviction dama ne xaj sax am na fidélité li may wax sama xol laa ko tibbe maa ngi xaar nag xëy na dina gis vidéo bi wala xaw ma reportage bi tontu ci xaj sax xaj sax am fierté Je ne peux pas qualifier Je suis qualifier mënoo dugg Je suis nit mu jox la nga lekk mu jox la nga peux mu wan la suis wan la respect yow rek pour une seule intention c'est juste pour rôle, point faible pour arnaquer des braves gens qui travaillent je suis une mère de famille respectable j'ai cinq garçons may Je ni sama

j'ai des preuves je pense que d'autres personnes auront le courage de venir aujourd'hui témoigner comme moi je l'ai fait parce qu'il faut qu'on l'arrête il faut qu'il arrête il fait des victimes il fait des ravages partout où il passe ça n'est trop il faut qu'il l'arrête il faut qu'il arrête il n'est pas handicapé il est en très bonne santé na dem comme j'ai honte pas fait, j'ai honte de dire que je suis sénégalaise parce que lui man musuma c'est peut-être parce que boog mais j'ai jamais vu ça de ma vie un voleur qui rentre dans la maison il prend ses responsabilités il prend des risques mais pas fait, c'est un lâche c'est un lâche il brise des vies dafay taskatu yaakaar la loolu daal laa mon ci lu may wax te képp me ma dégg képp ku me dégg tu ngay victime Pape Faye le courage de témoigner ndax Pape Faye arrête les malversations pour mu bañ d'autres victimes